de retour sur le plateau matinal Allô Sénégal ak sunu rubrique bu ñu duppee la revue web ñu dalal Kajoor Kajoor maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Aïcha. naka di nuyu sunu mbokk yi sant yàlla bu baax a baax ginnaaw bu ñu mayee tal ak fekkee ñu fas yéene àndaat ak yéen ci euh, diiru semaine bi. Ah, dalal ak jàmm ñu dalal aussi ki nga xamante ci moo di Pape Malick Thiam ci plateau bi Pape maa ngi lay nuyu. Euh, Aïcha maa ngi lay fay di la ziar di nuyu bépp téléspectateur 7TV. Euh, si début de semaine bi euh, di ñaanal ñëpp surtout ñu nekk si hôpitaux yëkkati leen. Hmm, amiin loolu am na solo euh, Kajoor la revue web dañ koy tàmbale ak li nga xamante ni moo di la soirée de la convention des jeunes reporters du Sénégal mu mel ni ay journalistes yu nekk fii 7TV boole nañ leen ci les meilleurs reporters. waaw moom comme nuñ koy defee bu ñu sosee 7TV ba léegi daanaka at mu jot mu am ñenn ci ay journalistes su kër gi ñuy privé. primé ci seen xarañtef ci wàllu liggéey ni ki euh, weekend bi nag bokk na ci kii di Awa Diallo moom nag moom moo jëloon euh, ñaareeli prix reportage am ñeeloon nag ak ak yelleefu euh, tout tànk yi reportage mi ngi ko tuddee addiction des enfants aux écrans accro mineur souci majeur waaye ki nga xam ne itam moom mooy Ousmane Ba moom it jël na ñetteeli place ci catégorie télé moom itam reportage am mu ngi ko tuddee woon l'ancienne piste daanaka ci loolu la ko defee point d'atterrissage de la précarité muy ñaari production yoo xam ne euh, ba ñu càmbaree gis nañu ne qualité bi euh, baax na lépp yemb na ba tax ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñu désigné ñu nekk euh, les meilleurs reporters en tout cas de l'année loole nag mu nekk loo xam ne ay raaya la yu ñëw dooleeku rek si raaya yi nga xam ne 7TV mi ngi koy am 2018 mm-hmm. mars 2018 ba mu sosoo ba léegi ndax nag ca at boobee nga xam ne ca la sosoo sax kii di Babacar Tunkar Diawara moom jotoon na euh, jël ab ñaareeli prix ci euh, même convention des jeunes reporters bii nii euh, ci reportage bi nga xam ne defoon defoon na ko mu tuddee ko massacre de Bissine les larmes de Diagnon moom nag mu jëloon ñaareeli place bi année bu ci topp kii di Papa Matar Selan moom nag dafa raflé woon daanaka prix Sesti Oxfam naka noonu Réjob ci ab reportage bu am solo bu mu defoon. ci wàllu zircon bi nekk ca Niafran mu duppee ko exploitation à haut risque euh, ni ki daaw nag ki nga xam ne Awa Diallo ren ji nga xam ne moom moo ñëw ci euh, deuxième place bi daaw troisième place euh, la gagné woon bokkoon itam si ñi nga xam ne ràññeeku nañu si li nga xam ne moom mooy journaliste yi gën a euh, xarañ euh, ren mu yokk jéego bi ñëw ci ñaareeli euh, place bi reportage am nag nga xam ne moom mu ngi mu ngi ko jagle woon wàllu mbënd mi moom moo waraloon mu jëloon ñetteeli place bi ren mu ñëw ci ñaareeli place bi moom nag la mu bëgg rek mooy bu déwénee mu jël raw gàddu gi loolee nag di liggéey boo xam ne daanaka euh, ñu ngi koy def ci cadre euh, magasine bi ñu duppee Grand Angle ñu di ko seetaan saa su ne mu bëri ay production yoo xamante ne euh, ñu ngi ko ci def loo xam ne nag moom moo waral tey ji liggéey yooyee ñu daal di ko récompenser ak ñaari titre yooyee nga xam ne ñu ngi féliciter toute l'équipe rawatina ñaar ñi nga xam ne ñooy mm-hmm. ndey mbili yi macha allah ca kanam rek la jëm ñoom nag ñu ngi àddu ci festival jazz muy festival bu mag bu nga xamante ni war na am fële ca Saint-Louis à partir du 25 ba le 29 mai. wax nga ko artist bi di euh, Ismaïla Lo nag moom fas naa yéene euh, teewee ci boobu lépp euh, ndaje waaye yeneen ni kàngaam yoo xam ne itam ñu ngi yëngu ci wàllu musique fas yéene bàyyeekoo fépp ci àddina wërngël këpp ngir mën a ñëw teewee ci boobu lépp ndaje ca ndar nag lay xewe artiste sénégalais bi di Ismaïla moom nag. ñuy xaar rek mu ñëw yëngal daanaka public bi ci boobu lépp ndaje ginnaaw ba mu euh, amee lu mu soppi ci mbalaxu Sénégal bi euh, am nag mu dugal ci nag yëfu boppam ba yenn saay sax mu nu rek li ñu duppee rhythm and blues ñu gën koo xamee nag ci euh, son bi ñu duppee euh, taajaboon daanaka ca la ko askan wi euh, xamee gën ko xamee nag ci loolu ñu jàpp rek ne li nga xam ne moom mooy festival jazz boobee dina am ñuy bàyyee ko ca réewum France. naka mhm. noonu Espagne ak yeneen i réew yu nekk ci àddina wërngël képp fas yi yéene ñëw teewee ci boobu lépp ndaje ay Aïcha. hors de chez nous waa Africa News ñu ngi xamal fële ca Côte d'Ivoire seen ancien président bi di Laurent Gbagbo nee nañu nag du mën a voter ci élection locale yi nga xamante ni euh, jàpp nañ ko ñaari fan ci septembre. waaw liste ba nag euh, samedi lañu ko dal di fësal mu mel ni rek ba léegi dañu koy téye mu jëfandikoo àqam ak yelleefam ci euh, wàllu vote rawatina élection yi nga xam ne appal nañ ko ñaari fan ci weeru septembre bi ñu dëgmal. loolee nag muy ab euh, ndogal boo xam ne parti ga mu bokk euh, ñoom dañu jàpp ne provocation bu ñu mënta euh, nangu la ndax kii di bag bu moom lii di justice internationale de mhm. crime contre l'humanité daal na ko yoon bàyyi ginnaaw ba ñu ko doon topp crime contre l'humanité waaye dañ ko mujj woon bàyyi si loolee nga xam ne lañ ko doon toppee te mu ñeel nag ay crise élec post électorale yoo xam ne amoon na ci diggante 2010 euh, jàpp 2011 foofee ca Côte d'Ivoire waaye mu mel ni donte bàyyi nañ ko ca loolu ñu ko doon toppee am na leneen loo xam ne itam ba léegi mu ngi ci ndoddam muy euh, ñaar fukki at yoo xam ne. Mm-hmm. Euh, Côte d'Ivoire teg na ko daan ginnaaw ba ñu jàppee ni dafa laale ci braquage u banque centrale des états de l' Afrique de l'Ouest loolee amoon ca atum 2011 ba tax na nag ñu jàpp ne donte cour pénale bi euh, bàyyi yoon na ko waaye li nga xam ne moom moo mm, ñeel nag procès boobu am foofu ak vingt ans yi ñu ko daan loolu dafay tax ba lii di àqam ak yelleefam euh, ñu euh, téye ko ko donte sax nag kii di Alassane Ouattara njiitu réew ma fa ne moom accordé woon na li nga xam ne moom mooy grâce waaye nee nañu. Mhm. suñ sukkandikoo ci daño jéjee Sébastien moom yi nga xam ne. Euh, ci euh, cadre euh, du parti bu Gbagbo la bokk moom nee na loolee du du yoon waaye nag ñu tontu nañ ko ndax kii di Gubière Coulibaly moom mi nga xam ne moom moo jiite commission boobu moom nee na nag loolee grace boobe taxul benn yoon mu mën a bokk ndax nag grace la rek waaye taxul mu mën a récupérer li nga xam ne moom mooy ay aqam ak yelleefam mu yokk ci ne sax lu toll ci onze mille ci ay doomu Côte d'Ivoire ñoom it la daal euh, Laurent Gbagbo ci décision boobu moom it moom moo leen daal. Kajoor dañ koy ndax keppe ak waa France 24 ñoom nag ñu ngi ñuy xamal ñaari astronaute saoudien euh, fa mel ni yéeg nañu ci jaww ji pour la première fois. waaw muy guléet euh, ni ki dem nag dimanche ca la. Euh, fusée bi non euh, le neuvième euh, fusée Falcon 9 bi ca la daal di décoller jëm nag Floride foofee nga xam ne fala station spatiale internationale ba ne à bord nag yaa ngi koy wax léegi ñaari saoudien kenn ki di góor kenn ki di jigéen Rayana Barnawi ak Ali Al Karni ñoom nag ñoom ñoo nekk ci boobu lépp. Euh, roppalaan euh, boole ci nag euh, ñi leen ñeen ñaar yu leen di gunge bokk na ci Peggy Whitson nekkoon nag ancienne astronaute de bu fële ca NASA moom nag moom mooy ànd ak ñoom boole ko ak euh, ñi ki nga xam ne itam moom mooy euh, doomu amee entrepreneur américain bi di John euh, Chauffner moom daanaka sax moom mooy dawal li nga xam ne moom mooy fusée bi ñu wutali nag foofee nga xam ne fa la ñu jëm Aïcha ñu fas yéene yegg 13 heures 24 heures locale lundi tey ji ñu fas yéene amal am fa nag lu toll ci fukk ci ay fan ay Aïcha lii daanaka moom mooy li gën a fës ci xibaar yi ñu jëlee eh, ci xarale yu yees yi. fa la ñuy am fukki fan ci kaw. ci kaw da la ñuy am fukki fan xaw ma nag lan lañ fay dundee ak nan lañu fay nekkee foofu daal la ñuy nekk kéemaanu yàlla rek. ak ak ak xam-xam xarañteefu. doomu aadama science c'est important merci Kajo xibaar yi am na solo. mbokk yi des leen ak ñun dañ koy wëyal ak li nga xamante ni moo di la revue politico économique ñu di ci ànd ak léegi léegi rek bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi. ñu waxtaanee actualité politique ak économie ak économique ak ki nga xamante ni moo di Pape Malick Thiam Pape dañ koy daal di